mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal la jàmm ci xibaar yi taskatu xibaar bi leen la Madiambal Diagne daal dinay adressé ab benn citation directe jëmale ko rek ci Dame Mbodj njiitalu syndicat bi leen di CUSEMS authentique woolu nañ ko ci kanamu troisième chambre correctionnelle ci ñaari fukki fan ak ñeent ci bi ñu ne ngir rek tontu ci délit de diffamation bi ñu koy jiiñ bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi leen di Les écho mi joxe xibaar bi patron wu groupe avenir communication bi ngi koy rek réclamer cinq cent wu millions ngir rek loolu mu def nga xam ne nag di ay kàddu yi mu yëkkati ci bësupa fukki fan ak ñeent ci kanamu presse bi bés boobule nag suñu koy fàttali Dame Mbodj nag da doon àddu rek ci diggante bu ñagas bi nga xam ne rek Aïda Seck am na ko ak Madiambal Diagne jëm rek ci wàllum terrain dem sax bay wax ni président de la république Macky Sall dafa war a jàpp kile di Madiambal Diagne bu fekkee rek moo ko ngemb ndax nag jàpp na ni rek dafa laale ci ay litige foncier yépp mu nekk nag ay kàddu yu activiste bi lee di Dame Mbodj yëkkati woon ma Madiambal Diagne nag ci biir citation bi mu def xamle na ni accusation yooyu le Dame Mbodj def yu graaw la la yëkkati te amu ci benn preuve ba pare nag ñu reprendre ko ci réseaux sociaux yi ak TikTok ak niki mel ni YouTube